12h45 minutes moo jot ci Zik FM 89.7 la rajo leader 12h45 minutes moo jot sur Sen TV la télévision leader noonu la ñu àndee ak yéen tam ci page officielle bu euh, Zik FM ci Facebook bi Zik FM 89.7 officielle Zik Feeling mooy wéy jëm ak yéen 14h incha allah waxtu wi nag da ngeen koy am ci Sen TV en direct am ko itam ci Zik FM waaye am ko ci page officielle bi. di nuyu bu baax a baax téléspectateur yu Sen TV. fu ñu mënti nekk wax yi duñu seetaan ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax nii la ñu leen di gunge sachez la radio Zik FM 89.7 rajo askan wi Cheikh Sarr ak séeréer bi ñoo leen di gunge les deux animateurs les plus écoutés sama waa ji Yamoussoukro le Cap-Verdien hello everybody yeah. hello of the round I am so happy to. être ici. ok ñun sunu làkk la. ok voilà. sunu làkk kenn kenn ñun américain ñun sunu làkk kenn duñu ci polémique. non xam nga comme ñu ne auditeurs yi amuñu ne boo. Mhm. sànq dafa am loo wax. nga ne yaay mob di. maa ngi maa ngi nuyu. <laughs> sànq loolu maa ngi nuyu. alaaj xaar rek ma wax ma wax auditeurs yi. maa ngi nuyu auditeurs Zik di nuyu internetu euh, Zik FM yi. waaw di nuyu euh, téléspectateurs Sen TV bi di nuyu xale yi maandu yi. <laughs> d'accord ba tey. di nuyu xale yu maandu yi nga xam. ba tey xale yu maandu yi maa ngi leen nuyu. loolu ba tey. xale yi nga xam ni toor fa kàll fu nu fekk mag sagal ko. loolu yëpp ba tey. di nuyu xale yi nga xam ni du nu toroxal mag. loolu yëpp ba tey. waaye du nuyu tamit bu baax a baax a baax xadi Xadija euh, Mayakor Diouf <laughs> <laughs> fu mu yem sànq da nga wax ci au ci suuf ne yow daal dugal ma dugg rek. ne yow yaay Mob Dib. waaye dina la Mob Dib groupe la. ñu bàyyi mu sedd. non c'est euh, ci li ma waxoon dama ni. I look like I look like I look like 50 Cent. ok. I look I look like. wallaay euh, <laughs> wallaay I look like I look like Cent ay ay waay ay waay waay di bàyyi ma. <laughs> non xam nga problème mooy way di yow soo ma bàyyi woon sama temps rek yàlla xam ne ni kenn du ma génne ci temps bi ma nekk. mais mais bokk mais yow man xam na xaw ma moom Deep mais ñi xam nañ moom Deep non moom Deep groupe la boo xam ni groupe bu mythique la woon à l'époque en 1995 man bokkoon naa ci ñi leen doon manager en Afrique xaw ma Mobb Deep ma ne groupe Mobb Deep bokkoon naa ci ñi leen doon euh, ci ñi leen doon manager en Afrique donc ñi may euh, euh, nii. la naan de soit ils ont point maanaam. maag yow di nga ko point. maag yow la. mais waay di ñu ànd ci ngor. mais waay di lii boo ko cautionné. boo génnee dinga am problème. <laughs> waay di lu fi nekkul lu fi nekkul raay retiré ko. waay di man ak yow. dañu yàgg. ça fait très long depuis Walf 3. 2007 ñu bokk nekk dalay baab bañal animé mu rafet lool. dalay peek ak léegi. ba ba ñuy ñëw fii ci Zik FM. bu la ko kenn ci réew mi. dalay peek bañal non non non mais tamit su ma toogee di seetaan bi juum Cheikh. erreur la ah, ah waaw waaw waaw ñu lay reetaan. fu ma juumee. mob dib bëgguma ñu lay reetaan. ah mob dib. <laughs> Alima bàyyi la ngay def. kii dama ko bëgg. non lan moo defal naa mais am naa beneen ana xadi eh, eh, Xadija Maye Góor Diouf. ñun Diouf bi dañu réeroon. ñu ne ci naan Xadija Maye Góor Xadija Maye Góor ma ne leen Maye Góor est-ce que moom. koor est-ce koor bi du madame koor. Hmm. njoon ni ma ñoom seet ci séeréer am na sant maye koor ndeke ndaw si Diouf la sant. xam nga yooyu itam oh. xam nga fi mu toll nii bu ñu dee lijjanti li fi lëj lépp day bëri. <laughs> bu ñu demee ba bu ñu demee ba ni Pikine moom it mooy commune bi gën a rëy ci Ndakaaru. te commune ci banlieue bi laa wax. banlieue ci banlieue bi. mais banlieue bi commune bi gën a rëy parcelle la. non non non loolu ñëpp xam nañu. non non non c'est Pikine. avec seize communes. <laughs> maa ngi ñu ngi direct seen TV wala nekk ñu direct. ñu ngi direct seen TV. ak Zik FM yëpp. ak Zik FM ak page officielle bi. all right. yaa ngi live man. everybody how are you. Yeah. Sasadi. Yeah. Everybody, everybody, how are you? Oh, yes. Yeah. Uh, mm, uh, di nuy sama mbokki Gambien yi <laughs> di leen félicité ci ndam bi nga xam ne am nañ ko ci diggante am nañ ko ci Guinée. you know di nuy suma brother Koso Lo mu suma papa Moustapha Cissé Lo. ah manqué na APR ma manqué na Benno Bokk Yaakaar. dëgg la barke yonent Yàlla moom. dëgg la. dëgg la ñu ngi koy nuyu bu baax a di ko ñaanal gudd fan. dëgg la dëgg yàlla sàmm aar. dëgg la dëgg la euh, di wax ne. Kor Khadija ngi nii ah. <laughs> dégg semaine nen la may koor. maye koor <laughs> xol bee yaatu xol bee jireeku. nee na la maye koor. <laughs> yàlla di bëggee baax a baax su ma su ma su ma rakk ji nga xam ne mooy njaga siis. Ah. nga xam ne toile fakal tey moo ne ma il faut nga ñëw teewal mob dib. comme yow groupe boobu groupe bu mythique la boo xam ne ah, liggéey ci liggéey bu am solo. mais groupe la. ah groupe Mob Dip. ok. ils sont a a a trois ans. yaa leen di teew mooy mooy Prodigy. wallaahi ndeysaan. yaa ci kat. mais kooku kooku. <laughs> <laughs> kan la ci moom. est-ce que xam nga ni kii dafa am trait ak Young Jeezy. Young Jeezy. waaw mais xam nga. ci groupe ci groupe bi la nekkoon. non kooku am na benn son loolu mbokk la mbokk la rek mbokk la. ñu nag américain ay mbokk lan. waaw suñuy maam lañ jëlee fi yóbbu leen fi ñu meññ leen. xam nga direct dafa foor loolu nuróol rek day feeñ. man ñi may ñi may nuróole ak euh, tubaab bëri na ñi may nuróole ak euh, euh, ak kii nu mu turooti nu Jay-Z na ñi may niróo ak Puff Daddy bëri na. léegi léegi. donc loolu mbokk la euh, deret la. alaaji xaaral da nga niróo Tupac Tupac. waaw fii xam nga fii mooy seen TV. waaw ak Zik FM fii lépp mën a nekk wan leen ma Tupac ngir yàlla wala suude ngeen wan ma Tupac wan ma Cheikh Sarr. mais Tupac am na benn son di Dieu Mama man maa ko bind. eh waa kay ma Mob Dip bi Mob Dip. kaay ma dee. tegal ma <laughs> waaye bi ah. waaye bi bul dara. tegal ma mob dib mob dib a ngi. bu teg mob dib tegal tegal tegal tupak tegal ma tupak. dé déglul nii mob waa mob dib a ngi nii. jox tegal ma tupak ngir yàlla. yaa. ma ni que man. naas ak mob dib ak Oshiwali. non son moo tudd Oshiwali. son moo tudd Oshiwali kon. John wuy ma ma def góoru Ouzin Keita. Tupac oh, est là Tupac est là. wala eh alaaj ah. yéen ñaar wax ma li ngeen niroo fii. eh yow. à part que sa waay bëgg mu bàqal bi. alaaj. ah à part que sa waay bëgg mu bàqal bi. dëggal fii. mais waay. taxi bi maa ko bind John. waay di lii mën nga ko fooy. Tell them to laugh. When this began, we was the turf. I live from sea. What's your uh. do for love uh, def ko ak mbëggeel ak xol mooy do for love uh, lépp looy def def ko ak xol do for love c'est-à-dire booy booy booy dimbali nit la jëme ci xol mais li bokkul affaire problème wurus ak ngala <laughs> kii mooy Tupac Amor Shakur. Σήμερα το βάχει, αλλά δεν τα Est-ce que mën nga ma arrêter tu pakkam wala loolu mënul nekk. arrêté ma tegal ma tegal ma tegal ma dieu maama. eh tegal ma Viviane yow. waa Ndiol nga naan dieu maama. ndeysaan dag maa yóbbu sori de. yaay bandi. waaw waaw. du ma rab antal nga li nga yéene moo bul wut baloo ñemee ko waaw waaw ew bastu ko mën di ko def yow da ngay fo wakaay ñëwal ma defal la luy tax nga nangul ma ci tànge ma la mbaa lépp ma ngi baaxee woo ko num lay niroon

teggal fi dama bëri jàpp man ca man la te du ma rab antam nga li nga yéen moo bul wut bas nga ni ew fifi yaa ko mën di ko def yow na ngay foowa daay Julio mon ami Julio <laughs> déggal foofu